ayca nuyu nañ leen bu baax a baax ziar leen di leen baalu àq di leen baal àq di leen ñaanal jàmm macha allah di ko sàkku ci yéen di wax la nga tam xarit la ñu wax comme ni ñu leen waxoo rek nee naa saa su nekk ci actualité la ñuy dox tam xarit bi ñëw na ba pare ñëw nañ fi fi nga xamante ni mooy fi nga xamante ni mooy yëmbal seesi fi ay suñu yaay yoo xamante ne maanaam macha allah ci tam xarit bi lu ci nekk rek maanaam ci cere dañ koy doxal ñoom lañ seesi fi nga xamante ni mooy yëmbal Ousmane danga may topp rek ma dugg fii xool sama yaay yi nga xam nee naa la ñu ngi ci cere ji ay ayca Ousmane nee naa la acte banlieue lay xewee danga may toppare ma xool sama yaay Ousmane ñëw ñu dem ayca mat koo yëmbal seesi fi suñu yaay yoo xamante ni macha allah tamxarit bu nekk dañuy doxal yàgg nañ fee ñëw nag mel na tamxarit la ñu wax ndax ku ne tamxarit ne cere waaye ku ne cere tamit ne laalo ñu gis koo xamante ni suñu maam la mu naan tamit suñu yaay la mu nekk ci laalo ji ay ca yaay nuy naa la fay di la wax ci loo ne mbaa yaa ngi si jàmm waaw maa ngi si jàmm kay maa ak samay samay doom ak samay goro ayca ñu gis la ci li xamante ni mooy laalo ji ndax li ma wax sànq tam xarit ne cere waaye ku ne cere ne laalo ñu gis la soo ba tey yaa ngi ci ji takk lii pour lan la waaw wax nga dëgg ndax bu ñu nee cere laaloo tax ndax laalo moo koy neexal moo koy ritaxal mooy tax ñu lekk ko moo tax ñuy may takk laalo ni pour cere ji ku jël cere jël laalo juróomi kilo yu nekk nga jël ñaari ñaari sesee laalo moo koy laalo loolu moo tax boo jëlee lu ko ëppit ma jox la li koy laalo ñoo ci suñu jàmm juboo déggoo di liggéey suñu liggéey di daan suñu doole rek la ngir suñu njaboot ga ci suñu kër ga moo tax ñu daje fii di liggéey suñu liggéey yàlla dogal na ma def tooñkat laa waaye samay doom laa fi nekkal ak samay sët lu ma defit ñu def ko kaf rek maam ma moo tax aw fi benn jafe-jafe aw fi benn naqar naqari te maa fi fiy sama wërsëg ñun ñëpp jàmm la yéene nañu ñëpp jàmm Sénégal gépp yal na ci yàlla def jàmm def ko ci borom réew ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Muhammad di liggéey suñu liggéey yàlla nga koy barkeelal ñu ngi sant suñu borom yàlla nañ ko yàgg sant mais bàyyi sa goro ñu yeggali laalo ji dafa mel ni da koy jaay de waaw koy jaay bu ñu jaayee cere yi ku bëgg laala ñu jaay la nga laalo ji sa kër cere nañ ko dafa jeex dañuy laalo dañuy tey dañuy laalo di di jënd cere laalo mu ëpp përe cere ji amul laalo su ko defee ah moyen bariwul nga jënd fii li nga tolloo rek laalo ñu jaay la nga dem waaw noonu lañ koy doxale ku ngeen jaay cere da ngeen ciy boole mbuusu laalo wala laalo ji tam moom tamit da koy jënd da koy jënd de ndax laalo ji dañ na koy jaay waaw Ousmane comme ni ma la ko waxee rek nee naa la tey ñu ngi fii yëmbal c'est ñi nga xam ne maanaam suñuy yaay lañu ñii suñuy suñu suñuy maam lañu ndax tamxarit lañu wax wax dëgg yàlla nee naa la du mën a ñàkk te lu mënta ñàkk faa mu am acti baale ci actualité lay dox ci li nga xamante ni saa su nekk bëgg ngeen ko te ñu ngi taxaw ak yéen di leen ko defal ci loolu ñuy dox Ousmane ba tey ñu ngi ciy cere ji ñu ngi fii yëmbal gis nañ koo xam ne moom tamit la de ah, lay nuyu waaw maa maa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax ay ca yaay ku ne tam xarit ne si sànqal si xaw ma nag mu demee noonu waaw am na ñoo xam ne bu ñu tam ba suba sa dañuy laax mhm. waaw moo tax ñu koy préparé nii mhm. waaw. mais sànq si par mbuus ngay jaay wala. waaw par mbuus laay jaay mbuus 300. mbuus 300 waaw mhm. moom laay jaay. Mhm. sànq yaay dañu gis tey ci cere ji cere ji projet la dafa mel ni parce que gis nañ fi tey ay suñu maam gis fi tey ñoo xam ne suñu yaay yi la ñu mu mel ne cere ji projet la chaque année la wala chaque jour ngeen koy def. Euh, chaque jour lañ koy def GIE la waaw chaque chaque jour ñuy cere tam xarit nag da see rawati ndax moom si la client lii gën a ñëw waaw. tam xarit am na ñoo xam dañuy ñëw di jënd ay 2 kilos ay 3 kilos te ku jënd cere jënd laalo am na ñoo xam dañuy jënd euh, cere juñ laalo ba pare am ne euh, bëgguñu boo xamante dañ koy laalo buñ laalool bi lañ gën a soxla naka ngeen koy jaayee waaw am na ñoo xam ne bëgguñu laalo bu saf moo tax mu ñuy jënd cere di di ber laalo bi waaye ñun dañuy defar cere ju am laalo ak bu amul laalo di ko jaay waaw waaw léegi ban moo ci gën a dox bu am laalo ak bu amul laalo ban moo ci gën a dox ah ñaar yëpp dox na parce que cere moom il faut nga laalo ko waaw il faut nga laalo ko boo ko jëndee tamit da nga koy laalo waaye kii bi rek mooy saf beeg ñàkk saf bi am na ñoo xam ne bëgguñu laal bu bari am na ñoo xam ne waaw loolu moo tax. dafa mel ne yaay présidente présidente bi ah. mhm. ak sa nekkin ak ñi nga xam ne ñooy say maam wala sa nekkin ñi nga xam ñooy say morom nekkin bi lan la. Ah, allah rek laa leen mën a waxal. ñu yàlla moo ñu boole depuis onse ba léegi ñoo ngi fi waaw di jóg ko daanu waaw macha allah nag boobu ba léegi ñoo ngi fi kenn dégguñu si dara. ñu ngi góorlu rek di xaar nag xam na ne bës dina mus a ñëw daal ba léegi ñu ngi toog fii di xaar yàlla waaw ku ñu si jàppale nag ñu jël waaw ndax ñu ngi wut ay partenaire amaguñu partenaire waaw moo ñu tax a toog fii ba ba léegi di xaar. yéen jafe-jafe ngeen gën a am. jafe-jafe am nañ jafe-jafe bu ñu jaayee fu ñuy yóbbu suñuy produit am nañ jafe-jafe emballage waaw comme que nee nañ mbuus mbuus yi daf fiy jóge dañoo am problème mu emballage fu mu toll nii waaw waaw loolu lañ am jafe-jafe. mais amu leen maire boo xamante ne nii pour l'instant mi ngi leen di jàpp li nga xam moom nga ngeen di def ndax wax dëgg yàlla yaay li ñu faral di wax Ousmane ñoom ñooy teel a jug ñooy teel a xëy yàlla boo génnee ci marché yi suñu yaay rek ngay gis ñu jànkote ay jafe-jafe wax dëgg yàlla metti na lool mais yàlla baax na lépp dina baax bu soobee yàlla mais est-ce que am ngeen tey maire boo xamante ne par exemple tey ci li ngeen nekk ni mu ngi ciy teg loxo ah, suñu maire de moom baax na muy Bara Gaye waaw waaye moom instant bi moom gisaguñu dara ñun waa cere ji moom gisuñu dara déedéet gëstuwuñu moom waaye moom baaxam moom dégg nañu fekk nañu fii waa ndax mu ngi jàppale jigéenu waa yëmbal est dem ngeen fa waaw ñun xam nga fu mu nekk ni ñu am na ñeneen ñu ñu jiite ku dul ñun ñun si présidente cere bi rek lañ nekk waaye maison de la femme am na président ñoom ñooy dem si baara di ñëw ñun nag si wàllu cere bi lañ nekk yéen ak ñi nga xam ne ñoo leen jiitu est-ce que yéen a ngi déggoo seen biir. ñu ngi déggoo ndax dañuy def fii chaque semaine dañuy réunion fii dara um, ump leen ñu ngi di gisee di déggoo di waxtaan amuñoo ñoom benn problème. kuréel bari na wala yéen kese la. bari na waaw ndax am na ñu fi defar saabu am ñuy defar jus am na ñuy defar cere yooyu yëpp am na fi pâtisserie am na fi waaw. tey waxoon tey kàddu gu mujj wax tey lan lay doon. xanaa sant yàlla rek sant yàlla rek ndegam fekkee woon nañ ko daaw fekkee ko ren. sant rek bu baax a baax. yéen tamit sant nañ leen gërëm nañ leen ndax à chaque fois yéenay ñëw fii di ñu fekk fii di ñu jàppale waaw macha allah daal yéen tamit ñu ngi leen sant bu baax baax waaw macha allah. ayca Ousmane ñu ngi kontaan ci moom bu baax a baax mooy comme li ñuy wax rek wax dëgg yàlla ñoom ay jàmbaar lañu suñu yaay yi macha allah kenn du ñoom dañuy kontaan ci ñoom saa su nekk rek di la wax ne tam xarit la ñu wax mais ba tey ah du ñu bàyyi Ousmane dañuy dañuy dañuy waxtaan ak suñu yaay yi nga xam ay jàmbaar lañu ñu gisaat fi koo xamante ni mi ngi ci kurus après nañ waxtaan ak moom rek muy suñu yaay moom tamit wax dëgg ñu fekk ne mooy cere ji yaay booy maa lay nuyu. maa ngi lay fay. jël wax tur bi naka la. Fatmata Faye. Mm-hmm. waaw nekk ci maison de la femme nag. di ci yëngu. Mm-hmm. Ah, man ak sama xarit yi fi nekk nii. Mm-hmm. di Awa Mbodj. ak euh, ñun ñi fi toog nii ñëpp. yàgg fi nag di yëngatu wax dëgg yàlla. ah di dem ak sunu doole. Ah, di ci foraatu di yóbbu ci suñu njaboot. di yëngatu ci cere en même temps may yëngatuñu ci transformation fruits et te ma liggéey la te yooyu yëpp fii laa ko jànge dem feneen ay agroalimentaire dem jàng ñëwaat delluwaat ci bi ci maison de la femme nekk chef de entreprise ci PESA bi yor sama élève ci kër ga terewul yi di yëngatu fii di yëngatu foofu macha allah euh, tam xarit nag buñ ne tam xarit période boobu yëpp dañ koy jox cere ndax ci la ñëpp di euh, tabarkaal ci la ñuy gën a gis suñu bopp daal ndax cere jii ñuy liggéey nii rëcc wuñ ko benn yoon ndax tabarkaal la macha allah ñu ngi ci am liñ ci am liñ ci yàlla wërsëgale mais gisaguñu ndimbal daal lu xam ne jóge na fee ñëw ndimbal ñu am nañ ci yaakaar na xëy na dina ñëw ñu ngi ciy yaakaar comme que Macky mu ngi dimbal nit ñi ah ñaan nañ yàlla mu yëg si yàlla baax na ñu ngi koy toog di ko xaar yàlla baax na yal nañ yàlla dooli sutura mais fii bari nañu fii liggéey ci kaw am nañu fii liggéey savon am na ñu fii liggéey transformation fruits léegi pâtisserie lépp a ngi fii daal tubaarkàlla macha allah mais ñun nag carit yi ñoo aya tey ci tamxarit yi ñuy liggéey tarex tamxarit tubaarkàlla nit di jóge fu ne di ko jënd am na dañoo euh, amul ay partenaire mais am na ñoo xam ne ak seen doole di jógee ba Amérique alwaan mii di ko lijjanti di lijjanti ay partenaires ñuy jóge dem ba Amérique di yóbbu suñu céréale bii ba itali fu nekk daal Espagne fu ne France fu nekk suñu céréale baa ngi fiy dem waaw lu ñu liggéey rek tubaarkàlla macha allah yàlla dina def mu dem mais na soxla nañu ku ñu jàppale ndax suñu matériel yi tubaarkàlla yëpp wàññeeku na amatuñu matériel gis nga fi ñu suñuy gaz suñu matériel yu bëri daal dafa wàññeeku tubaarkàlla te soxla nañu ku ñu renforcer ci capacité ci suñu matériel yi soxla nañu ay formation waaw yooyu yëpp soxla nañ ko waaw ku ñu jàppale daal ñu jël Baara Gaye moom nit ku baax la ñu ngi dégg baaxam di dégg léppam mais war nañoo jàppale ñu war nañoo jàppale waa céréales locales am na ñu fi nekk nag sunu suñuy git maanaam présidente am na fi maison de la femme mais ay céréales bi ku ko jiite mooy Alwan Ibrahima Mbodj mii ñu topp si ginnaawam ba ba léegi rëcc wuñu nag luñ fiy liggéey tubarkalla macha allah ñu ngi ñu koy ñaanal yàlla ñun ñëpp ñu yàgg fi te am wér te lépp luñ fiy liggéey mu nekk suñu njariñ te barkeel yéen ñi fi ñëw it ñu leen di ñaanal ngeen yàgg fee ñëw di ñu fi fekk bu ngeen fi ñëwaatee yàlla ngeen fekk ñu yokk ba yëg ko yéen it ngeen yokk ci kàttanu yàlla yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def leen bu baax a baax ñu mel ne yaay cere ji dama gis ne cere ji comme li nga wax sànq rek ay nit ñooy ñëw jóge yéen lieu yi nga xamante ne sori ña ñëw jël si li nga xamante ne mooy cere léegi mën nañ xam saa su nekk euh, comme tam xarit ñëw na par exemple ñëw na ba pare mën nañ saa su nekk cere ji ñi jënd see ñaata personne lay doon wala leen ko xam mënuñu ko xam parce que fii nii wax dëgg yàlla ay saaku saaku moo fi nekkoon te yëpp jeex na yëpp jeex na tabarkàlla macha allah kon nag dañuy ñaan yàlla ah bu déwénee li ñu liggéey ren nawet bee sax tax waaye nawet bee tax mais daaw li ñu liggéeyoon moo ëpp li ñu liggéey tabarkàlla macha allah waaw nawet bi moo tax mais daaw li ñu liggéeyoon moo ëpp li ñu liggéey waaw waaye nag ku nekk sa wërsëg na ngay demee xëy na la yàlla moo dogal li ñu liggéey nii fii lañ mën a yem parce que bee tax te doole doole amul waaw doole amul dëgg ñu daan ñëw bu nu mu gënoon bëree ñëwatuñu mais nag ku nekk sa wërsëg rek ngay jël ñu nga ñaan yàlla luñ fi am rek yàlla na nekk suñu mu te nekk suñu wërsëg waaw rëccu wuñ nag luñ fiy liggéey wax dëgg yàlla transformation fruits léegi légumes lépp a ngi fi waaw saaku mango nga bu fee mango bi nga rombe fee saaku bee dinañ ko transformé dinañ def jus dinañ def sirop dinañ defar jus wu madd jus wu Dakar lépp maa xasaalaat lépp lu ñuy bay rek ñu dañ koy liggéey même sirop nebedaay sax dañ koy liggéey waaw chaque jour la ñuy xëy mais am na ku ci nekkee am na entreprise dama am sama entreprise mais terewul dañ fi daje di liggéey bu ñu amee céréale commande bi dañ koy toog liggéey ko bu demee suñu entreprise suñu biir kër it ak suñu élève waaw. mais cere ji euh, maam cere ji lii par kii la de defe naa par sachet la. kilo kilo ñaata ngeen koy jaay li kilo la. sachet 600 ngeen koy jaayee. 3000 lañ koy jaayee. waaw am na ñuy jaay nag lu ëpp loolu. ñun ñoo gën a yombale cere fii ñun ñoo gën a yombale cere. kilo 600 doo ko dégg fan ci ñun rek nga koy dégge waaw ndax ñun dañ ko tàmm suñu clients yi ba rus nañ ko sax yokk te dugub yokk na lépp yokk na mais dañ ko rus a yokk waaw kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla dool ñu si tur lu mu tuuti tur rek. mu laalo bi rek ngeen def ay sachet wala bi am laalo. laalo bi dañ koy paqueté 700 lay koy defaree kilo bi 700 la bu am laalo bi 700 lay jar bu amul laalo mooy 600 bii bu am laalo bi mooy 3500 lu ci waay bëgg. boo bëggee ñu bañ laa paquetel defal la ay peese boo yeggee bu dee logo nga yor nga am na ñoo xam dañuy jënd par saaku dem di defar seen bopp logo di ko importer waaw boobaay kilo 600 yi rek lañ lay jaayee même ñun ñii fii liggéey sax kilo 600 lañuy ñuy waaw. yéen ñi fiy dañ fiy jënd fii la ñuy jënd suñu suñun ñi ku su soxla da ngay jënd boo bëggee sareeru ko da ngay ñëw fii jënd fay waaw noon la noon nañ ko doxalee suñu mbir waaw bu fekkoon ne ku soxla jël kon du ñu am dara mais dañuy liggéey sunu doole bopp nag la ñuy demee te rëcc wuñ ko waaw ci yow maam jërëjëf waa yàlla nañ fi teew na gën a déwén te buñ fi teewee ngeen yokk ñu yokk ak suñu njaboot ak njabooti jullit yëpp te boo balaa heure déwén yàlla buñ fi gis benn feebar nag bu ñu jaaxal yàlla na ndox mi yóbbaale bépp mbas ak ñaan yi suñu kilifa diine kilifa aada yi liñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ayca Ousmane gis nga sama maam loolu la wax mais ba tey nee naa la Ousmane ah, ba tey ci ni mooy cere dañuy jàllaa rek ci li nga xamante ne nii gis nañ bi suñ beneen maam boo xamante ne nii moom it wax dëgg yàlla yor na kay Ousmane mi ngi bind mais xam ñu li muy bind lan la mooy seen secrétaire ah, yor na kay Ousmane mi ngi bind xamuñu li muy bind lan la yaay nuy naa waaw ah, ça va maa ngi lay fay maa ngi lay fay ñu ñaan yàlla bàyyi ñu fee ay ati ati at yàlla sàmm ñu làq ñu fa yàq yeggul yàlla dàqal ñu feebar bi lu ñu fi ñaan rek yal na ko yàlla nangu déjà sax ñëpp présidente bi ak ñii wax nañu lépp waaw daanaka amatuma ci paral ndax wax nañu lépp mais nag ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla jàppale nu gën noo suturaal làq ñu fa yàq yeggul waaw ñu ngi daan nag suñu doole ñu ngi jéem ñu ngi daal nekk benn dañoo nekk entente lépp sunu lépp benn la ñuy ñaan yàlla nag ñu gën noo fulandi gën noo sàmm waaw waaw man nag maa leen di lu ñu jaay ma bind lu ñu kii ma kii waaw ñu récupéré yëpp ñu jox présidente bi loolu daal noonu la demee. ay ca maam ñu gis yaa ngi yor tey benn kayit boo xam ne yaa ngi ko yor di bind dafa mel ni li nga wax sànq rek kuy jënd yow lay sa xaas bi si yow sa loxo lay jaar après nga bind ñaata kilo la bëgg wala ñaata ñaata kilo la soxla nga bind ko. presque ñi ñi mujjee laaj ñëpp ñu ngi nii pour subaat jàmm. waaw ak saako yi fi neen yëpp jeex na comme nii la ko faat fay mais waxee rek waaw loolu daal moo ci ne lu ñu lu ñu fi liggéey rek bind naa waaw lu ñu soxla it ñu da bind waaw ah, dafa am ñuy tay am ñuy lay am ñi nga xam ñooy def sachet yi waaw ak ñuy weer weer ci kaw ci kaw la ñuy weere bu woowee ñu weeri peese sol ci saako waaw yàlla baax na est-ce que mosu leen tam xarit cere ji des mu sonal leen. fi mu ne du doy même jour bi à cinq heures sax dañuy clients yi dañuy ñëw ñun waaw ñu ñuy jënd xam nga dañuy weer di jaay mais jour bi bu tooy xëpp la ñuy jaay ndax ñëpp a yàkkamti ab rang la ñuy def waaw dañuy range fee ba fii di ñu xaar waaw. waaw maam kontaan nañ ci yow. bon na leen yàlla defal jàmm sàmm leen làq leen fa yàq yeggul comme ni ma leen ko waxee woon rek yàlla musal ñu ci lépp luy lore jaa ngeen jëf. yàlla guddal seenu fan làq leen fa yàq yeggul jërëjëf. bon ayca Ousmane nee naa la ci cere ji lañ nekk ba tey gis nañ fi koo xam ne Ousmane moom mi ngi lay xam nga man sax wax yàlla bu ma joxoon sax ma lay ndax man lay rek laay def ayca <laughs> ayca <laughs> yaay buy nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay. ayca gis naa la yaa ngi ci tàngaayu cere ji ku ne wax dëgg yàlla ku ne tey cere ba xippi rek dangay lay ak tàngaay bi nga ñemee ko affronté ko macha allah yaa ñu gis nga ne ci lay cere bi di lay. dëgg la ñoo ngi ci liggéey bi. nga tam xarit moom buñ ko waxee rek cere ji. Mhm. dañuy liggéey boobu ba léegi ñu ngi ci. di góorlu rek. Mhm. ndax bañ tàllal loxo rek. Mhm. dañoo jaboot. Mhm. bañ a ñaan bañ a def lu bon. moo tax ñëw fi daan suñu doole. loolu moo waral ñëw fi di tamxarit di cere. mais li liggéey bi projet la projet la wala euh, lenn la loo xam ne tey benn mbootaay la yéen ñëpp ngeen nekk ci di liggéey daan seen doole. waaw liggéey bi moom projet la. waaw ñu ngi liggéey di daan suñu doole. ñu góorlu bu baax di am ay clients yu dem bitim réew. di am ñoo xam ni tamit dañu ci dëkk bi di ñëw di ñu jàppale di jënd ci ñun. Mhm. ñu tamit ñu def ko liggéey bu sell bu set. Mhm. wax dëgg yàlla gis ngeen bi ngeen ñëwee. dañuy bale ba mu set defar ba mu set. Mhm. moo tax ñu taamu suñu liggéey. ñoo ngi ñaan yàlla na di ko def ay déwén yu baree baree bare. yéen yàlla jàppale ni yéen tamit. ngeen góor lu góor lu bu baax a baax ndax ni ñu am lu góorgóorlu rek. yàlla jàppale leen bàyyi nu fi. bàyyi fi ñëpp si barke yonent bu tedd bi. barke Seydina Limaamul Mahdi ñu yaakaar. yàlla jàppale leen bu fekkee déwén yu bare bare bare si barke Baye Laye borom maam Seydi damaa gis tey nga nekk ci tàngaayu cere ji yaay xam nga ne cere dafa tàng nga nekk ci dafa mel ne liggéey bi dëgg la yàgg nga ji comme li nga wax sànq rek mais ak ni mu tàngee nii ngay dugal sa loxo bi nii di ko di ko muqar ci la xaw ma loolu yaay loolu doy na waar de waaw deful benn problème ndax dama koo tàmm yàgg naa ci liggéey bi mhm. moo a loolu tàngaay bi yëguma ko daal mhm. waaw loolu la waaw xam nga loo tàmm góor lu rek xam nga ñi fi nekk ñëpp daanaka maa ngi gën a féyte ndaw waa moo tax ma xam ne samay mag lañu mhm. samay tànta lañu mhm. may góor góor rek di leen jàppale mhm. waaw di leen yóbbaale ndax liggéey moom boo ci nekkee il faut da nga yóbbaale loolu rek moo waral lii waaw mais client yi daal mën nañ jàpp ne ñu ngi ñëw waaw ngi ñëw moom macha allah moom ñu ngi ñëw waaw ñu ngi ñëw moom ndax sañu secrétaire bi ku ñëw bàyyi fi xaalis mu bind sa tur kilo nga bëgg boo ñëwee rek livré la nga dem waaw loolu daal la ñu liggéeyee waaw is des fois est-ce que doo ngeen jànkoonte ak client yoo xamante ne client yu métti lañ daan ndax liggéey boo gis rek nga nekk di liggéey des fois nga jànkoonte ci ay clients yoo xam ne day métti duñ comprendre est que loolu mi ngi leen dal xanaa maa fi jiitu rek maa fi jiitu moom am na moom démb laa ñëwoon maa fi jiitu ñu def leen nànk rek yéen ñëpp di ngeen am incha allah loolu da ñu daa amee luñ xuloo luñ def dara nag koo wax rek mu ree daal di comprendre xam ne liggéey bi moo waral loolu waaw ayca kontaan nañ ci yéen. jërëjëf jërëjëf ñoo gën a kontaan. jërë ngeen jëf. ayca Ousmane comme ni ma la ko waxee rek nee naa la tey yëmbal la ñu nekk tey ci li nga xamante ni mooy projet cere ji ñu fekk fi suñuy maam fekk fi suñuy yaay wax dëgg yàlla macha allah ku ne gis na liggéey bi tey ñu ngi def liggéey bu am solo li may faral di wax nee naa la yaay ñu mënuñu leen a fay ndax nee naa la saa su nekk boo yeewoo yaay yi ngay gis ci oto boo yeewoo yaay yi ngay taseel ñuy xëy wax dëgg yàlla daan la ñu xam kon dañ di leen jaajëfal di leen remercier a Sénégal liggéey rek moo wóor te ñoom ñu ngi ci xaaruñu kenn ci lépp loo xam ne liggéey la ut daan dool la wala jaay la wala jënd rek ñoom ñu ngi ci kon amuñu seen fay ndax gis nañu cere ji mi ngi tàng waaye gis nga ñu ngi ci dugal seen loxo yi mu nekk loo xamante ne macha allah lu metti la mais itam di leen wax fi ngeen jàpp foofu la waaye fi ngeen teg seen loxo foofu la lépp dina baax bu soobee yàlla mais ba tey Ousmane nee naa la bàyyiwuñu ndax gis naa fi tamit koo xamante ne nii moom tamit suñu yaay la mi ngi ci tàngaay li nga xamante ne mooy cere ji ay ca yaay maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay nee na di la delloo njukkal. di la sant di la gërëm. waaw léegi. yaa ñu gis tey cere ji yaa ngi ci tàngaay bi euh, comme li ma wax sànq rek ku ne xam na ne cere ji instant boo ko génnee ci indi indi bi xippi ko day tàng mais ñu gis la yaa ci cere ji di def li nga xamante ni mooy liggéey bu am solo. waaw xanaa nekk ci rek di jéem a kër kër yi rek ndax faj ci soxla rek. bañ a lebi bañ a àbbi bañ a ñaani rek baña a taxawaalu ju fenn te yor njaboot gu sew rek te sësuñu loolu rek ma ci tax di kër kër yi de lu ma ci for rek mu lew ma ma yóbbul leen ko ñu lekk ko mu lew leen rek mhm. loolu doo tax ma di ci sonn de waaw. Mhm. mais liggéey bi yan jafe am des fois dañuy yoo xamante ne Ousmane da ngay yu métti macha allah loo xam ne mënuñu ko sax wax mais yaay liggéey bi est ce que am ngeen ci ay jafe-jafe yoo xam da toog sa kër tey découragé wala nga toog sa kër ne est ce que man du ma bàyyi ndax ku ne xam liggéey cere dafa métti. ñu méttee métti sax lañ ciy jànkonteel comme nawet bi ñu ne nii mhm. da ngay mooñ tey ba pare weer ci kaw asamaan si suuf bala ngay daw manga bala ngay daw di yéeg ci escalier yi bay weere ji cere ji tooy xam nga loolu pertement la nga weere dafaraat nawe bi noonu ngay jàppoo da ngay daw di yéeg di daw di wàcc di daw di yéeg di daw daw boo ñibbee sa kër doo sëgg julli da ngay toog di julli loo soxla da ngay raam di ko jël waaye nag lépp bëgg bañ ñaan sa morom rek wala nga àbb sa morom wala nga leb sa morom wala sa doom taxawaal ci kër kenn loolu dong la di ñaan yàlla rek bu nu yàlla mayee fan wu gudd ak wér gu yaram ba njaboot gi màgg ah danañ ñu ci génne loolu dong la de waaye jafe-jafe yi moom metti na lool xam nga taal bi tàng na ne ci saxaar si sëli boo wàcc day jàpp sa bopp bi di ko metti sa tànk yi di metti lépp day metti waaye nag ah sutura si yàlla yaana gis nañ lépp yàlla daal gis nañu danu nu ko fajal bu soobee yàlla ak yonent bi nga xamante ni mooy mooy inde bi suus bi tay bi lay bi. dafa mel ne liggéey bi kenn ku nekk ak li nga war a def. waaw kenn ku nekk ak li nga war a def inde bi moom maa ci féete woo kii waaw ñoo ci nekk tey di tibb di leen jox ñuy lay waaw ndax ñoo leen ci eh, eh, gën a eh, yàgg daal gën leen ci miin nuñ koy defee moo tax ñu ñoo ñoo féete woo inde bi waaw liggéey moom benn seddu ci waaye kenn ku ne am nga foo féete ku ne ñëw rek daal di daal sawaar rek def lii sa morom def lii sa morom def lii rek du am xiiroo du am ŋaayoo du am dara liggéey boo ko defee noonu yàlla da leen di suturaal lu ngeen ci am rek da leen di lew waaw amul tappale amul njuñ njaaj amul lenn loo xam ne ni nit dina ko fi def ñun suñu lépp benn la ku ci xëy dimanche ba xëy si woo sax da ngay namm sa morom alti danañ yàkkamtee daje ba foree waaw loolu ñun amuñu benn problème moom wax dëgg yàlla waaw dafa mel ne yaay liggéey bi yamul rek ci cere am na ci yeneen liggéey yoo xam ne lépp mi ngi ci biir waaw am na yeneen ne ci biir ndax danañ fi defar kooko junjeer waaw danañ fi defar ay jus danañ fi defar beñe danañ fi defar euh, saabu danañ fi defar euh, beñ lépp daal danañ ko fi defar ku am xew itam boo soxlaa laax boo nu commandé laax araw ñu arawal la boo commandé ñu toggal la laax ñu toggal la laax soo amee xew boo nu woowee ñu toggal si la ñu toggal si la boo amee takk boo nu commandé beñ ñu defaral la boo nu commandé si ñu defaral la lépp waaw loolu daal moom ñoo ngi si moom waaw mais dafa mel bi dox na de yaay ah liggéey xam xam ah ñu sant yàlla de yaay am na xaalis de man damaa a ñëw am na xaalis de waaye ah, bu fi jaaree rek daal yàq lépp de wax dëgg yàlla ndax da ngay yendoo tay ba ngoon doo mën a tëdd nelaw sax ndax weer ga nga waaw loolu la léegi liggéey bi ku ci bëgg bokk da ngay adhéré wala da ñëw gis la wala présidente bi nga xamante ne moo ne ci présidente bi dante bi moom ngay gis waaw ñun ñi fi nekk ñëpp na kenn ku nekk benn soon nga joge soon ba sa présidente moo la fay indi ku ne moo la fi indi léegi uh, ku adhéré wut ci maison bi doo xëy rek ñëw liggéey si déedéet da ngay rek boo adhéré nag sa groupement sa maire indi la nga bokk waaye fi ñu toll nii ku bokkutoon ba naga ni moom booy boo dem tooge waaw noonu la. yaay kontaan nañ ci yow. man comment leen gën a kontaan di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér gu ak yokkute xéewal yu saawaan baawaan ci barke borom Touba ñun ñëpp ñu bokk ko tam xarit yàlla nañ ko teewee nagan diwan te nagan diwan dàq ren mbas mi yàlla na fi jóge sonal nanu na dem na dem a dem a dem sonal nanu suñ mun sëñ Muntaxa ñaan na dina dem léegi incha allah ñun sëñ Bamba rek lañ yaakaar day dem léegi bu neexee yàlla waaw jërëjëf. mais Ousmane du mën a ñàkk il faut ñu jël koo xamante ne nii wax dëgg yàlla moom tamit ah ngi ci li nga xamante ne nii ah mooy sachet yi la yor paquetage yi di kole am na solo ay ca moom tamit il faut ñu waxtaan ak moom ci li nga xamante ne nii. nee naa la mooy mooy mooy mooy sachet yi ay ca yaay yaay gis nañ la sànq ba tey yaa ci li nga xamante ni mooy sachet ñu ngi lay nuyu avant ngay waxtaan ñoo ngi leen di fay ñoo ngi leen di fay lu bari ñoo ngi di fay sax di leen di <laughs> ziar di leen ñaanal yàlla <laughs> waaw ñoo man maa nekk ci sachet yi di paqueté bu ñu defee cere ji ba pare ak bu ñu defee sànqal yi ba pare ak bu ñu defee araw yooyu yëpp ñoo koy def ci machine bi di ko paqueté waaw mais yaay est-ce que euh, paquet lii yomb na ba pare yéen lii la nan ngeen la ñaata ngeen koy jaayee. bii bii paquet cent grammes la. 500 waaw 300 lañ koy jaaye waaw paquet yi paquet sànqal bu dee cere jéeg yëpp bu ci nekk cent gramme bi 300 lay jar bu dee cere laala bi moom 350 waaw. mais sosé ñu jënd cere ñoo koy jënd wala li nga xamante ni bu ñu jógee ci tam xarit comme am ñoom damay laax la tegal leen ko fii ndax tam xarit buñ ci jógee ñu ci bari laax la ñuy togg ak tout le temps à part dimanche am na ñu bari tam laax la ñuy togg moo tax tout le temps dañuy ut sànqal ak araw yëpp di ko fi teg di ko am ndax suñu client yi ndax dañoo taamu nañ suñu liggéey daal macha allah ñoom yaay féete li nga xam mooy paquetage. mooy paquetage waaw fi ne bu mu fekkee ne defuma kii maay féete wa paquetage bi paqueté balaa moo lii. paquetage metti na wala. déedéet métti pas la ndax am nga courant bi. bu courant da ngay débrancher di branché. bu tàngee nga débranché bu cee nga branché waat. loolu loolu donc moo ci lii waa nag. est-ce que doo ñu defal benn ñu xool parce que li nga def nii yaay am na solo macha allah ndax li ma wax sànq rek nee naa la jigéen kenn amul fayam mooy liggéey. mooy def li nga xamante ne nii wax dëgg yàlla ay ca Ousmane moom mi ngi paqueté affaire yi day ndeysaan am na solo macha allah ndeysaan uh-huh. Uh-huh, dëgg la après da koy branché daal di paqueté. boo uh-huh. nag daal di tegaat paquet di paquet gis nga bu tàngee nag gis nga day daal di dagg nga xool ba xam na dagg na jàpp na. kon soo ko branché ba nga koy juutal nga xool ba xam dagg na wala daggul na wala daggul parce que bu tàngee boo kii rek day dagg mais bu tegee bu nuggee nugg bu yem boo kii mu daal di koy paqueté mu daal di kii tapp waaw. yaa dafa mel ni affaire bi système la de. système kay moom. loo <laughs> jàng <laughs> yëpp dañ ko def formation nag. donc yëpp dañ ko def formation. bi def céréales locales la ñu defal sa formation yëpp ci lañ ko def. ayca di leen jaajëfal bu baax a baax di wax tey li leen indi ci li nga xamante ne maanaam mooy spécial tam xarit wax dëgg yàlla tey yëmbal lañ ñëwoon fekk si fi suñu yaay macha allah ñu ne ci liggéey bu am solo ñi ñi ngi ci paquetage ñi ngi ci cere ji ñi ñi li nga xamante ne mooy laalo ji mu nekk lu am solo di leen jaajëfal bu baax a baax di wax suñu yaay lañu mais suñuy xarit lañu waaye suñuy tam suñuy maam lañu di kontaan ci ñoom bu baax a baax di wax liggéey bi rafet na am na solo macha allah ñu ngi leen di ziare bu baax a baax di leen bégg di wax acti banlieue saa su nekk nii koy defee ci actualité rek la ñuy dox wax dëgg yàlla amuñu fayu kenn képp koo xam ne yaa ngi doon bàyyi xel dañuy suivre ci site bu mag bi nga xam mooy Actubali ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal wax tam bu neex lañ leen di ñaanal mbokk yi nga xam ne samay kal lañ ah, ñu def ci cere ji ndax cere xam nga rek dafa diis ko lekkee day xaw a def tuuti déplacement day am solo kontaan naa ci li nga xamante ni nee naa la mooy Ousmane moom suma frère la suma xarit la suma lakkal la ëmadi moom tamit ah, suma coach la maa ngi koy ziar bu baax moom tam di ko ñaanal jàmm ki nga xamante ni mooy Ibra tamit ah, équipe lañu ñun ñëpp Actubali même génération ñu ñëpp ay xale lañu wax dëgg yaa ñuy liggéey liggéey bu am solo bëggee naa ñëpp ah jaajëfal naa ñëpp kontaan naa ci di wax na xaaral ci leneen loo xamante nii nee naa la Actu Banlieue ca kaw ca kanam ci lu baax jërë ngeen jëf ba beneen yoon jërëjëf